salaatu lazi fi kulli bisaarin wa fi safar amaani ala maahin asalaamaaleykum mbokki internet Rafah TV am nañu mbégte dellu si waat ak si suñu plateau Yoor Yoor Magal Touba lépp rek di jëm si wàccaayu Magal Touba ba tax na ni ñu ko tàmbalee woon démb noonu nañu koy wéyandee tey jii nii wax si sëñ Touba yaatu na lool ba tax na mën nañ ko wax si différentes fànnam ndax euh, soxna Salimata euh, jamono ji ku si nekk rek war ngaa xam sëñ Touba euh, si les écrits du Cheikh surtout ba tax na comme niñ ko àndee woon démb bokk ko fii si plateau bi ñu ñuy sant yàlla bi ñu yàlla mayee kàttan ak tey jii ba ñu mun ko teewaat nii di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum Salimata bonjour. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu soxna Aminata di kontaan loolu ci invitation bi ah. di ñëw comme ni ñu ko waxee rek euh, ci version olof bi ñu war a développé tey ah. ci wàllum njàngale sëñ Touba ah. di nuyuwaat ñëpp bu baax di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal sëñ Mountakha yàlla fi yàgg te wér amiin macha allah soxna Salimata nuyoo bi am na solo sëñ Fallou bisimilah nuyu wutal mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, mbokk maa ngi di nuyu leen ziar bu baax a baax di amaan mbégte kontaan di dellu si waat ci plateau bi euh, Rafah TV fas yéene ànd ak ci waxtaan wi ak euh, soxna Salimata borom Ndar Géej ak soxna Aminata mbay di ñaanal suñu ñaari waajur yàlla suñu borom yàggal leen fi lool mais tamit di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi nga xamante ni moom moo fi nekk tey yàlla suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp loo xam ne naan la ko si yoonu rek. Euh, suñu borom mottali ko. macha allah sëñ Fallou nuyoo bi am na solo lool aha ñu njëkkanteeg waxtu bi rek bu ko defee ñu daal di tàmbale euh, Salimata ma lay laaj tey jii nii li waral màggal tubaa euh, ku si nekk rek war nga ko xam ba tax na bu ma la laaj wàllum tey jii ni ñu war a célébrer màggal tubaa si lan ngay dikk ak ñun si fànn. comme ni ñu ko waxee. Mhm. nit ki nga xam ne moom war na def déplacement di jógee dëkk ba dëkk. Mhm. war ak nit fu mu mënti jógee ci àdduna bi. Mhm. tey nit ñu jóge nañ fu ne ci cinq continents yi. Mhm. Asie amerique Europe Afrique fépp fépp nit ñi ñu ngi fay jógee ñëw pour wuy si ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba kon boog soo koy wuy si waroo koo wuy si ci loo xam ne xamoo ko war nga def ay jàngat xam lu tax man lan moo ma yëkkati lan moo war a tax tey ji man ma war a ñëw jóge dëkk ba dëkk ñii di dagg billet ñii di ñii di jóge fu ne mhm. macha allah mhm. kon soo ñëw war nga am intention ci sa xol fas sa xol xam ne comme li ma wax rek yoor yool bi nga war a am ci màggal gi da nga war a wax ne yow ci sa xel mhm. dama koy am par la force macha allah da ko war a wax ndax soo ko soo ko jàppee noonu sa xol soo ñëwee lépp lu jàngaleem cheikh mi lépp lu sëñ Touba wax ci ay teggin di nga ko jëfe liñ naan danga war a jëfe ndigal li nga jëfe ndigal lépp teg ko ci teggin. ci dal mm-hmm. ak ci yar. macha allah am na solo mm-hmm. soxna Salimata aha sëñ Fallou euh, ñu bëgg rek nga dikkal ñu euh, ci l'exil du du du du ak tamit euh, décomplexé l'homme noir également. waaw bu ñu ñëwee ci wàllum kii exilu sëriñ bi xam nañ ni sëriñ bi def na suma juumul ñaari exil yoo xam ne mën nañ koo souligner bi ci njëkk mooy bu Gabon. ak euh, bi nga xamante ni defoon nañ ko déportation également en Mauritanie euh, bu ñu ñëwee ci Gabon sëriñ bi jóge woon na fi di dem euh, Gabon pour exil bàyyi fi njabootam ak ay taalibeem waaye rek tamit dem goo xamante ni métti woon na parce que di dem ci dëkk boo xam ne xamoo lan lan ngay fekki ak nasaraan si le colonisateur liñ nar ci yow loolu yaakaar naa ni wax dëgg yàlla loolu lu tooy xol la lu métti woon la. il l'a fait pendant sept ans euh, juróom-ñaari at yoo xamante ni euh, def na ko Gabon euh, ci loolu sax bi loolu amee dégg naa ci ci biir ci biir ci ci ci gëstu ñu ne fekkoon na fa Guinée bu ñuy wax Almami Samori Touré Almami Samori Touré demoon na ci sëriñ bi di ko xamal ni maanaam bu demee ba nga xamante ni wuyu na suñu borom ak fu mu mënti nekk quelle que soit la distance même bu doon nekkoon sax Amérique mu nekk Sénégal. maanaam na ko na ko na ko jullee maanaam une une prière mortuaire en distance parce que boobu noonu euh, almaami Samori Touré feebaroon na feebar bu metti euh, bi yàlla suñu borom dogalee nag mu ba loolu am euh, après sëriñ bi comme ni mu ko bëggee woon noonu la ko defee woon su ma ñëwee ci wàllum déportation en en Mauritanie mën nañoo ne c'est une courte yàgg na yàggul ci. quatre ans def na ko euh, déportation en Mauritanie euh, bi mu ñëwee euh, métti woon na parce que il était toujours au contrôle en résidence surveillée maanaam mayuñ ko woon jàmm parce que boobu noonu xam nañ ni mbooloo maa ngi ñëw di ko wuyusi si dongo yeeg yu ni mel cheikh yi waaye boobu li ñuy wax comme mën naa évoquer foofu noonu la polonisation ba tey nga xam ne dañoo takk suñu suñu suñu baat. xoj ñu rek ne du ñu bàyyi mukk ci indépendance ñu ñuy dund ba tey jii ni néocolonialisme mu metti woon lool euh, ba nga xamante ni maanaam pour euh, taalibe mi amoon accès ci moom sax lu metti woon la waaye nag euh, xamal nañu ne bi mu demee ba ci biir Gabon noonu ci ci Mauritanie dem na boo benn guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le prophète feeñu ko jox ko benn wirde bu ñuy wax al wirdul maqouz bi nga xamante ni moom la ñuy wirdu tey Euh, yàlla suñu borom dogal tamit foofu noonu fa la jaar ba maanaam am ampleur daal ci islam maanaam petit à petit ab affaire bi di gën a am ampleur ñi koy wuy si di gën a bëri waaye bu leen fàttane tamit dañ ko doon surveiller chaque jour euh, bi bi loolu amee tamit euh, autorisation coloniale française recevoir oon na ko bi mu ko recevoir ba pare ci biir ci biir audience bi ñaanoon na leen pour mu indi ko Sénégal waaye biñ ko indee Sénégal tamit euh, dañ ko yóbbu woon fu ñu doon wax Ceyeen Ceyeen waa Ceyeen Jolof fa lañ ko yóbbu woon biñ ko fa yóbbu woon tamit ba tey toujours en en en résidence surveillée toujours en résidence surveillée pour pour lan pour rek ngir rien dootul que rek pour maanaam nasaxal li mu nekk pour salteel ko tilimal ko waaye yaakaar naa c'était le contraire euh, bi mu nekkee foofu noonu après jóge na fa bi mu fa jógee ñëw na njaareem mooy Jurbel ñëw na njaareem bi mu ñëwee njaareem tamit euh, toog na fa mais terewut ba tey en résidence surveillée waa ba tey waaye terewut euh, dongo yi ñoo ngi ko doon ñëw di ko wuyu si yaa ngi comprendre euh, léegi bu loolu amee tamit toog na fa toog fa toog fa ba yàlla suñu borom subaanu wa taala bi nga xamante ni moom mooy dogal ñëw def mu dem ilaa jiwaari rabbihi en 1927 bu leen fàtte ne tamit def na kii kii bi résidence surveillée boobu noonu. dund na ko environ environ lu mu gàtt gàtt fukki at ak juróom quinze ans. macha allah am na solo daa mel ni soxna Salimata sëñ Fallou yëngal nañu si fànn woowu noonu macha allah nga xam ne sëñ bi jot na ko eh, dund. Mm-hmm. Eh, démb tamit doonoon nga wax lu am solo eh, si wàllu comportement yi fi ma bëgg tamit nga gën ñoo dikkal tey jii nii maanaam ndaw mi nga xam da nga jóge dëkk dëkk ñëw Touba yow Touba xam nga ne am na lu mu tere. ñu wàllu si yenn solin yeeg yooyu noonu ndax mel na ni léegi nit ñi dañuy xaw a làqatu la ñuy tere dañ koy bokk si seen benn saak rek bu ñu ñëwee jàpp nañ ne kër gi moom kenn amul fi accès euh, pour mun laa lijjanti bu ko defee rek ñu daal di koy jëfandikoo ndax loolu yow gis nga ne lu war la bu buñ la si laaj tamit loo si mën a mën a tontu. ndaw yi nga xam ne dañuy jugee dëkk ba dëkk di ñëw. Mm-hmm. même ba dul dara sax même bu dul lii ñu tere fii. li ñu waay wax rek li seen Touba tere yëpp. ak li ñu tere fii Touba yëpp islam moo ko njëkk a tere. kon boobu dañoo war a ragal yàlla ci li ñuy def. macha allah ànd ak yor ak tëggin xam ne lii kat bëgguñu ko lii kat yàlla suñu borom bëgg ko. yow ki nga xam ne mooy sa wasila mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bëgg ko. kon yow tamit soo ñëw war nga ànd ak tëggin yoo xam ne. ne man kat mm. naa ragal yàlla ndax. ku dee ak sa bàmmeel mhm. te yenn yi coono la mhm. coono la nga ñëw indi ay lu mu mënti doon mhm. loo xam ne dañ koy tere yaa ngi yokk coono sa bopp ndax yaa ngi nëbbatu te nëbbatu moom defe naa ne képp ku def yaa ngi stressé yaa ngi am yaa ngi patiné nga ñëw ci jumaa indi fi loo xam ne yow nanguwuñ ko doo nekk sax à l'aise ni nit ñi di nekkee à l'aise yow doo nekk à l'aise kon boobu nit sooy ñëw ak foo mënti doon muy Tuubaa ci dëkk kër diine yépp ci Sénégal Tiwaawan fépp soo fay dem. Mhm. war nga ànd ak yar ak teggin xam ne kilifa diine yëpp a tëdd kat. Mhm. liggéeyal nañu loo xam ne fii mhm. Sénégal. mën naa ne de aar nañu ci lu bëree bëree bëri. ñuy fànqal lu bëree bëree bëri. te lépp lu ñu liggéey ñoom. du ay caaxaan. muy Cheikh Ahmadou lu ñu liggéey du ay caaxaan. kon ndaw bi. loolu war nga cee jàpp bu baax a baax a baax. dëgëral sa toogaay. xam ne ñoom ñi li ñu liggéey du ay caaxaan. doxal bu baax a baax. solo euh, sëñ Fallou ñu bëgg rek tamit nga dikkal ñu si li ñuy wax euh, l'âme charnelle tey jii nii soo ñu mën a gën a expliquer loolu noonu euh, mbokk yi. waaw bu ma dikkee ci wàllum l'âme charnelle xam nga maanaam bu ñu waxee dongo dañoo wax dongo jàng ak tarbiyaw par exemple da gis koo xamante ne nii maanaam day nekk ci benn daara di fa jàng lan la fay wut xam-xam di sàkku xam-xam terewut da koy booleeg liggéey. parce que dañuy wax ne al ilmu wal amal jawharaani la xayri daarayni ñoom ñaar mën nañ leen a boole ñu ànd kuy liggéey ku ne kuy sàkku xam-xam ku ne tamit terewul ngay liggéey waaye tamit bokkoon na ci euh, ci ay ci ay dongaam comme maanaam ñoom daawuñ amuñu woon problème mu àdduna comme nii ay ay ay ay comme ni jamono yàqoo nii tey comme soxna Salimata ni mu ko waxee sànq parce que da ngay gis koo xamante ni day bàyyeekoo dëkk pour ñëw Touba pour màggal si di ñëw yor ay yàmbaak ay pon ak yu kenn xamul ñëw di nëbbatu mbala seen mbokk soxna yi ngay sol jip boo xam ne da nga koy xar ba ca kaw boo ñëwee ci jumaa ji ñu lay toroxal ci say moroom xam nga loolu tamit rafetul waaye jamono jooju noonu loolu amu ci amu amu amutoon ci ay disciple am maanaam ay dongam defoon na ci ñoom loo xamante ni maanaam ñoom lenn lenn rek mooy seen yitte maanaam xam-xam ak liggéey waaw ak pas-pas maanaam xam ne maanaam sëriñ bi rek moom moo fi nekk leneen nekku fi lu dul moom macha allah loolu moom am na solo soxna Salimata. Mm. ah ñu bëgg tamit ñu dëkkal ñu rek tey jii li ñu ñuy wax suñ ko mën a waxee wala ñu siiw ñi euh, en général bu ñu ñëwee Touba moom bala ñoo dem rek faaw ñu yóbbaale ab musiba maanaam faaw ñu yóbbaale loo xam ne dañ leen di mbamb peut-être sax euh, année ko fii mais am na année yu jot a jàll euh, dañ koy faral di gis loo xam ne dañ koy tere wala jekkul rafetul. Euh, ñu koy def ñooñu moom tey jii nii loo leen di ak tamit ñun ñi xam ne ay ndaw nañ am na si ñoo xam ne tey jii nii dañoo am yenn célébrité yi tey jii loo leen di moytuloo parce que tamit dëkk bi dafa am de de la ville sainte dëkk bu am solo la kon yaakaar naa li fi seen seen bi di bañ rek euh, jar naa bàyyi xel comprendre nga donc lu bëgg rek nga digtal ñu foofu noonu. ñi nga xam ne dañ leen di woowee ay célébrité wala ay influenceurs. ci mm, biir réseaux sociaux yi. yow mi nga xam ne dem nañ ba tappal la. kii boobu noonu grade boobu ne la yow nga wala yow célébrité kon am na ñu lay topp. Mhm. ci sa compte fu mu mënti doon. Mhm. xale yi ñu ngi lay topp. Mhm. nga war a bàyyi xel lu bare bëri. xam ne macha allah ñu ngi lay topp loo def dañ koy toppandoo. ndax li ci ëpp dañuy gis nit su la bëggee. ki nga bëgg. moom lu mu def rek yow da koy topp. macha allah kon yow war nga bàyyi xel toog war nga bàyyi xel lu bëri bëri. Mhm. surtout soo ñëwee ba fii li ñuy wax jihaadu nafs. Mhm. nga xeex ak sa bakkan. Mhm. xeex ak sa bakkan bu baax a baax te nga yóbbaale ko. bu mu yem fii kese. macha allah li ngay li ngay nootee fii sa bakkan. di moytu lu bëree bëri bëri affaire u caaxaan lu bëree bëri. te lépp lu dul dëgg neen la. lépp lu dul dëgg neen la. nga xeex ak sa bakkan bu baax a baax. nga yóbbaale ko ndax xam na ni ñu bëri ñu suivre. ñu bëri ñu lay topp mhm. te dara jarul tamit nga ñëw ba fii mhm. franchement di am ay nettali yoo xam ne ñu ne diw defoon na fi lii defoon na fi mhm. rafetul rafetul ci gis-gis rafetul ci dégg-dégg ñu bàyyi xel bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne dañ leen di woowee ay influenceur ay célébrité ay star ñu bàyyi xel bu baax ne ñoom xale yi dañ leen di topp dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax ñu defaraat seen toogaay xam ne àdduna yàggul. Mm. te Seydina Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jàngal nañu yar ak teggin. macha allah te waruñu ko am rek ci màggal gi. dañ ko ku ko amul woon soo ñëwee fii soo fi jógee. war nga ko yóbbaale seen kër. macha allah képp ku jógee fii nga ñibbi rek. Mm-hmm. war nga war nañoo gis changement ci yow. Mm-hmm. war nañoo gis ne ah kii kat màggal gi yokk na ko dara. soit mu nekk ngay wax. Mm-hmm. jigéen suy wax day wàccee baatam. soit mu nekk lu mu mënti doon ah moom da daawul julli mais léegi waxtu du ko raw. fekk am na loo fa jëlee am na mhm. loo fa jàng sa iman yéeg na si sa tawxiit lépp lépp mhm. xam ne yow am na lu change ci yow mhm. mais ñëw màggal dellu mel comme ni nga ko yàlla di leen wax ñoom ñu defaraat seen toogaay comme que ndaw yi dañ leen di topp bu macha allah asona ah, Salimata am na solo aha mu ñu ñëw si sëñ Fallou nga dikkal ñu rek waaw les épreuves bu ma fi ñëwee maanaam euh, métti woon na ndax nit ku ne xam na ne njalbeen ak ku mënti doon rek day metti rawatina maanaam ñu dem bu ba ñu ne nitu uh, sunu borom subhanahu wa taala la uh, nga uh, dana am ñoo xamante ni dañ lay el di critiquer loolu moom mënta ñàkk waaw des fois moom boo bëggee lu baax dana am ñu nekk à côté di saboter di yàq am na ci sax njaboot yoo xamante ni dañ doon am problème ak seeni parents ndax da nga gis sa doom joo xam ne maanaam day bëgg a dem ci daara ji dem ci sëriñ bi pour jëlee fa xam-xam maanaam pour tarbiyewu liggéey maanaam euh, nekk un bon exemple exemple ñu lay empêcher di la di la di la di la kii di la caricaturer maanaam di la bunduxutal daal waaw yooyu yëpp amoon na ci waaw euh, te boobu noonu boo xoolee il y avait ce que l'on appelait la euh, kii aristocratie locale ceddo yi ñi nga xamante ni maanaam gëmuñu woon dara ay athée lañu woon maanaam koo xam ne maanaam gëmul dara genre yooyu noonu maanaam pour nga cultiver leen def ci ñoom dara maanaam dana métti waaye nag Serigne Touba doon na def lu tuut ba ñooñu ndaw yooyu noonu maanaam doon kii doon muñ ndax la patience yaakaar naa ne euh, mënta ñàkk ci nit faw ngay muñ ndax bu méttee boo muñul rek yaakaar naa doo jàll euh, doon na leen sax jox exemple saxaaba yi ndax ku ne xam na ne Abu Bakri Siddiq Omar ibn al-Khattab Ousmane Ali bi yonente bi euh, dëddoo ñoom ñoo fi ñoom ñoom ñoo fi toog waaw si de manière successive waaye kenn ku ci nekk rek am na liggéey boo xam ne seqoon nga ko yónnente bi muy liggéey bu rafet boo xamante ne nii maanaam ku jàng siira rek histoire yu yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne def nañ jéego bu rëy rëy ci yoonu lislaam bëgg et la formation nan la ko sëñ ñi. la formation waaw euh, xam nga euh, dañuy wax ne euh, maanaam njàng moom yaakaar naa mooy fondation. de de toute société société bu mu mënti doon ak loo mën a am ci àdduna te daanaka amoo xam-xam rek maanaam daanaka jëriñul dara ndax xam-xam da euh, dalay dalay yóbbu fu sori daal waaw yaakaar naa ne euh, ci ci ci wàllum formation euh, bu ma bu ma bu ma bu ma mënee bu boo xoolee tey comme tey bu ñëwee tey ci Touba xam nga ci wàllum formation bi njàng bi gis gis nañ Euh, Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi fi ne tey def na ci jéego bu rëy avec euh, le complexe de Cheikhoul Khadim université bii nga mu tabax nga xam ne tout récemment waa Hizbut Tarqiyyah demoon nañ jébbale jébbale caa euh, caabi kër xasida yi yaakaar naa ne foofu am nañ fa yaakaar ndax jàpp naa ne tey képp koo xam ne am nga bagu kii bag tey muy al azar bu ndaam bii nii mbala ak fu mënti doon yaakaar naa ne war nga fee mën a ñëw te boo fi ñëwee li ngay li nga war a rootee ci yeneen université yi rek mën nga fay rootee sax lu ko raw ndax xam naa ni fii bi université bi ku ko gis xam ne su paree wax dëgg yàlla yaakaar euh, am na ci bu baax a baax te taw tawféex dina ci am euh, loolu daal moom laa jàppoon ne carrément moom euh, ci wàllum kii éducation ak formation waaw wax dëgg yàlla. lu am la solo la si. waaw jërëjëf sëñ Fallou. ndax mën nga ñu tënkal rek li nga xam ne mooy les écrits du Cheikh. par rapport aux écrits du Cheikh plus précisément ci kunkaati man rek laa ñëwaat parce que. dafa am solo dafa am solo te uh-huh. jeunes yi lay waxal. xam nga ñun ñëpp ay ay jeunes lañ. Uh-huh. foofu li ma fay tënk rek mooy jàngal nañu bu baax a baax. Uh-huh. li ma naan chaque jour da nga koo war di lire. heure boo xëyee suba balaa ngay tëdd ci lal war nga ko lire. yow miy jeune di wut xam-xam. di wut euh, dara ci sa àdduna. nga xam war a am ay objectifs. war a xam fi nga jëm li ma naan di dox noonu rek. Mm-hmm. dafa war a am objectif ne man kat fii laa jëm. Mm-hmm. di ko atteindre. Mm-hmm. di ñaan yàlla nag di sabablu bu baax a baax a baax a naax. macha pour tënk comportement bi bi euh, disciple bi war a am mooy taalibe bi war a ñëw. màggal si. war na ànd ak yar comme li ma waxoon rek. Mm, mm. soo ñëwee nga participer soo mënee participer ci jàng xasida yi. macha allah nga participer si. Mm-hmm. jàng alxuraan bi. Mm-hmm. Euh, di di di zikr. Mm-hmm. di di di ànd ci ziyaar yi. dem soo mënee dem jumaa ja dina xat loolu nag mais. da koy def jihaat rek comme li ma mënti ah. li ma wax sànq. nga dem fa nga ziyaare. nga ñaan nga ñaan sa soxla. te di ñaan ñëpp lépp luñ fi ñaan. yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Cheikhul Khadim macha allah am na solo lool soxna Salimata jamono ji dëkk bi xat na lool waaye tamit mel na ni embouteillage yi bëri na si yoon bi ba tax na bépp taalibe foo munti rek rek jàppal ne loolu moo gën jàppal ne sëñ bi ngay liggéeyal sëñ bi fo la mu tey jii nii ba tax na lii am loolaa gën a metti foofu kon nag ñun ñi rek euh, loolu rek war nañoo doy exemple mm-hmm. ba dara duñu si metti moo xam nga ñëw tawte si yoon bi wala tawte wala sax amoo foo dal donc jar na rek nga ñëw ziar si ndax rek sëñ bi lan la wax bëgg na waxtu bi fu mu jotatee nga ñëw santale ko borom bi subhaana wa taala kon yaakaar naa ne ndaw bu ne rek war na bàyyi xel si loolu mm-hmm. ba dara rek doo ko xool mu jaral la ko nga visé si loolu macha allah euh, sëñ Fallou ñu bàyyi la nga tënk si euh, lépp loo xam ne rek euh, par rapport aux écrits du Cheikh comme ça tamit nga tàggatuwaale ak mbokki ñi seetaan waaw ci écriture sëriñ bi su ma ci ñëwee maanaam mën nañoo wax ne il est l'un des plus de l'histoire des écrivains parce que yaakaar naa ne li mu bind moom du Victor Hugo du keneen ak ku mënti doon poète yi ñuy tudd yi yëpp yaakaar naa ne moom il le grand poète man maanaam il est au moo nekk ci kaw li bind moom kenn du ko bind waaw euh, bindal nañu nag ay téere yu bari yoo xamante ni comme tey boo fa demee tey euh, da da nga gën a am tawhid am na ci yoo xamante ni tamit dana la yokk fiq am na ci yoo xamante ni dana la yokk tasawuf parce que tey su ma jëlee tey Masaalikul Jinaan les itinéraires du paradis foofu noonu bu ñu demee ci wàllum colonisation euh, sëñ bi moo ñu doon ja moo ñu doon jàngal ko ne nit ki maanaam ak lu mënti doon rek ak lu mënti xew ñuy wax foofu ñu doon wax ci ay euh, égalité des races parce que boobu nasaraan ji boobu jàppoon nañu ñoom ñoo ñu gën pour ñoom la peau blanche moom chaque jour moo nekk ci kaw euh, deru nit ku ñuul mu xamal ñu ci ne nañ éviter loolu le complexe d'infériorité di ñu xamal ne ak lu mën di xew rek maanaam nañ nañ gëm suñu bopp bañ maanam daal yaaku ci seen kanam wan leen ne ay gor lañ nous sommes dignes d'être noirs fiers d'être noirs di leen xamal ne maanaam deretu noir mooy daw ci suñu kii mooy kule kule ci suñuy ven waaw loolu daal moom lañ mën a jàpp ci li nga xamante nii maanaam euh, sëriñ bi bind na ko téere yi nag bëri na yaakaar naa ne buñ fi nekkoon ci suba ba ngoon di wax du jeex waaye pour maanaam ñu tënk rek waaw loolu daal. xam naa lay tàgg mbokk yi macha allah ndax euh, sa teewaay fii am na solo lool te mbokk yi lay seetaan aussi yaakaar naa bëgg nañ ci yow. waaw di sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala rek euh, bi nga xamante ni dogal na maanaam ñu fekke euh, bés bii nii ba mën a ñëw toog fi partager le maximum de connaissance as tuut li nga xam ci sëñ bi ndax sëñ bi moom kenn mënu koo xam ba mu waaye li ñu jot a ci moom as tuut maanaam ñu koy sante suñu borom mi nga xamante ni maanaam may nañu tey opportunité ba ñu mën a ñëw toog fii waxtaane kook mbokk yi en tout cas daal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal màggal ak jàmm ak salaam. macha allah jërëjëf sëñ Fallou si soxna Salimata lay tàggoo. Euh, maa lay sant di sant soxna di sant sëñ Babacar. Mm. di sant yàlla bu baax a baax. Mm. di kontaan ci toog bi ñu toog fii. macha di di souhaiter ñëpp boo màggal. Mm-hmm. incha allahu rabbi ñu teg lépp ci teggin la incha mhm. allah te di wax tamit lépp luñ fi wax mhm. li nga xam ne lu dëng la ci ñun ñi la suñu jëm yu xeebu yi mhm. lépp luñ fi wax eh, lu jub ñu xam ne ci yàlla la di yàlla bu baax a baax lépp luñ fi wax mu jëriñ ñu jëriñ ñi nga xam ne ñu ngi seetaan incha allah di souhaiter ñëpp encore une fois boo màggal macha allah ñun tamit ñu ngi lay souhaiter boo màggale Touba ndax yaa ngi jóge ba eh, Louga am na solo lool di kontaan bu baax également sa teewaay fii nii rafaati bi kontaan na si jeunes yéen ñi suñu invité nekk ay ndaw sawar lool macha allah ngeen nekk ay étudiants euh, def déplacement ak tamit euh, vraiment boobu ngeen sonn si mbir mi ànd seeg Waarafa TV jàpp leen ne Waarafa TV donc si jiital DG euh, sëñ Moutala Fall moom la ñu nuyu di leen sant di leen gërëm man tamit kontaan naa bu baax a baax si yéen mbokk yi lii lañ leen indiloon si les écrits du Cheikh ñu lay leen jox rendez-vous incha allah ce soir daañu continuer si yéen ba tax na woy leen suñuy programme fii si Rafah TV Rafah TV saa su ne rek day dab li nga xam ne mooy seen bànneex jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah